jërë ngeen jëf mbokk yi ci ànd bi ngeen di ànd ak ñun ci wasaare lamb ci xibaari làmb la ñuy dugg ak yéen dinañ waxtaan ak yéen ci làmb ji nga xam ne dañu ko fas yéene ubbi waaye bëri ci huis clos huis clos nag mooy bëre boo xam ne nii public bi du ñu ñëw maanaam seetaankat yi duñu seetaan si ci noonee nag waa kër Balla gay 2 am na lu ñu ci wax waaye aussi ñi nga xam ne ñoom ñooy promoteurs yi Euh, Bira seen njiital CNG dalal na leen foofee ci arène nationale démb ba ñu waxtaan ci te ñu mu gën a yaatoo ñi nga xam ne ñoom aussi ñoom ñoo yor écurie yi nekk ay responsable wala ay euh, président ñoom aussi am nañ ab jàngat bu yaatu buñ ci gis ndax dañoo jàpp ne dañu leen a beddi mbokk yi ne sut ñu ñëw yéen ci li gën yaatu ci xibaar yi. jërë ngeen jëf mbokk yi comme ni ñu ko waxee ci bopp xibaar yi làmb ji la ñu fas yéene ubbi waaye huis clos huis clos nag bu ñu ko waxee mooy làmb joo xam ne nii danañu bëre waaye seetaankat yi du seetaan si loolee nag ki ko sàkku moom mooy ministre des sports Matar Ba ginnaaw bi mbëri génnee ne dañoo bëgg a bëre ak lu làmb yépp namm làmb mu sàkku ci président CNG Bira Sène ngir ñu waxtaan ak promoteurs yi ci ban anam la ñuy ubbee làmb ji ba ñëpp delluwaat di bëre waaye nag public bi duñu ko fekkee ñi nga xam ne ñoom ñooy acteuru làmb yi loolee moom moo waraloon démb Bira Sène daal di woote foofee ci arène nationale woo promoteurs yi ngir waxtaan ak ñoom dañuy dem seetaani Jax production ci kàddu yi nga xam ne ni yëkkati na ko. te di leen xamal ne waxtaan nañ waxtaan bu yaatu. ci mbirum làmb ñu mbirum ouverture saison bi. man samedi dew moon ci réunion bi wala au ministère. mais def nañ résumé liñ fa wax yëpp. Euh, ci loolu lañ doon discuter. parce que ministre pour ñu ubbi làmb ji mais en huis clos huis mooy du am public kenn du seetaan ñoom état ñu jàppale promoteurs yi ci mbir moomu waxaguñ nag naka lañ ñuy jàppale waxaguñu naka la mais daal d'accord nañ ci commencer à huis clos gannaaw kàddu yu mu yëkkati moom Jax production ci dugg gi nga xam ne fas ne nañ koo dugg ci huis clos ñeme ko ba dee nag ki nga xam ne nii moom aussi mooy Sidi Diakhaté nekk foofee ca capital di raay ca Thiès nekk promoteur bu mag moom it yëkkati na ay kàddu xam ne ne bu dee suba suba moom pare na ngir ubbi baal bi won mbokki promoteur mi naka la ak nan la kon ñu déglu ji Sidi Diakhaté te dellu si waat. je suis pour bu fekkee ci condition yi ñu wax pour état bi ñoo jàppale. Hmm. ba pare léegi donc man nee naa leen d'ailleurs sax nañ ma jël man ma jëkk a organiser donc huis clos bi. Mm. loolu maa ko wax fii ci biir léegi. ñu ne ma ndax la man leen non damay invité donc euh, ñi nga xam ne ñoom ñooy promoteurs yi ñu ñëw sama nawle donc invité ñi xam ne ñooy CNG bi pour wan leen exemple bi nan lay demee ba ñu parce que loo xam ne bu fekkee bu ñu ko dimbalee noonu ñu ñu ko waxee nga jël sa xaalis yow def ci. maanaam liñ la jàppale ci nga ciy def ba pare léeg-léeg bu fekkee am nga perpé nga jaayaat encore am dara ah man damay defee ni kon foofu sax le bénéfice bu lu mu bon bon fa lañ fa lay fa lay ëppee parce que li ci des la leen ñu naan def yëpp ay risque la de dañ daan tëgg donc dem tudde ay nit jaay ay billets est ce que daan na ko combler léeg-léeg du ko combler da ngay jëliwaat sa budget bi ngay liggéey parce que làmb képp ku ci tëgg aussi du làmb nga yaakaar. gannaaw ba ñu jógee ci Sidi Diakhaté ci même lancé bi rek la daal di dem ànd ak yéen euh, taataan kàddu yi Pape Thialis bi nga xam ne moom mooy njiital Leewtoo production ci ubbitik làmb ji moom it lan moo ci xalaatam. c'est vrai que ñu ñëwoon pour waxtaan donc waxtaan xool li nga xam ne état moom la proposé donc état li mu proposé mooy. comme moom mooy gérer sport nation bi donc huis clos mooy am si sport que ça soit ak discipline bu mënti nekk maintenant huis clos bi nag réalité làmb ak réalité yeneen sport yi bokkuñu donc moo tax ñu demanda c'est ñu def des budgets par rapport ak programme yi ñu am ñu indi ko après ñoom ni ñu xool daf ko synthétiser ko daf ko benn document final pour mën ko jox état maintenant à partir si base boobu la état di xool nan lay jàppale promoteurs yi mm. mais ñun que làmb dafa nekk loo xam coup bi dafa dafa am doole donc même bu dul huis clos bi li état di di dimbale mais na nekk dimbal bu consistant parce que bu consistant rek dinañ ko yëg parce que c'est vrai que modèle économique yi am na ay pay-per-view am na yëpp am na mais en réalité est-ce que pay bi dina la mën a ji jii permettre yow nga mën ci génn à cent pour cent bu amul public. Mm-hmm. te lamb sans public aussi nekk na loo xam ne pour une première foo ñu xoolaat ko. ok mu ngi noonu ñoom promoteurs yi jàpp nañu ne lu mën a nekk la gannaaw euh, sàkku nañ ko ci ñoom en tout cas danañu def li ñu war a def jébbal ko ki ñu ko war a jébbal. bu ko defee nag ñu croiser les bras di déglu ba xam naka la ñuy def ak ñoom ak lan lañ leen di proposer loolu moom mooy kàdduy promoteurs yi nga xam ne jaar nañu fi waaye aussi suñu papa Basirou baabu mi nga xam ne mooy njiital euh, manager yi nekk aussi membre CNG fa la ñu ko fekk démb mu yëkkati ay kàddu ñu taataan ko ci micro Djily Kébé. xanaa jàmmoo ak euh, nit ñi namm làmb promoteurs yi soxla financé seen xaalis ñu bëgg xool solution boo xam ne danañ ji tëgg làmb promoteur du gaañu mbër du gaañu ci loolu rek lañ doon waxtaane pour jàmmoo àndandoo ànd ak promoteurs yi ànd ak euh, mbër yi ànd ak journalistes yi àndandoo ñun ñëpp ñu ànd defar ko xool nu mu rafete ñu defar ko bokk ko kenn bañ jooy. gannaaw seenum ndaje moomee nag nga xam ne ndajeem promoteurs yi la woon ñi nga xam ne ñoom ñooy responsable écurie yi Euh, ñu gën leen a xam ci kuréel gi nga xam ne moom la ñu bànqaasoo muy ARELS ñoom nag démb dañoo fekke si woon ndaje mi waaye dañ leen a génne ca biti mu jur nag naqar goo xam ne nii ñoom naqarlu nañu ko bu baax a baax a baax dañuy dem déglu ki nga xam ne moom mooy xalifa Niang ci kàdd yi mu yëkkati jagleel ko monsieur le ministre Matar Ba Khalifa nag mbokk yi moom mooy euh, njiital écritage si nga bu ëmb seen. interpellation bi may def dama koy interpeller mooy les autorités de ce pays la parce que lamb buñ koy wax école ak écurie moo tax ñuy wax làmb école ak écrit yi moom la promoteur yi di seet si moom la ñeneen di seet pour làmb mën a am mais su fekkee daa am loo xam ne dañ ko war a def ci làmb ñu war a waxtaan ci làmb dañu war a woo toutes les composantes de la làmb à commencer par les présidents les responsables des écoles et des écuries parce que ak lu mënti demee ñoom ñooy base bi en quoi les promoteurs et les amateurs sont plus impactés que que que, que les les écoles et les écrits je crois que li ñuy def nii c'est justement du poli euh, populisme la ñuy def di xool ñi nga xam ni peut-être ay ay ay ay ay ay lobby yoo xam ni dañ leen di woo prétendant que ñoom ñoo yor lamb yoruñu lamb bi lamb bi c'est les école et les écrits su fekkee daa am na loo xam ni dafa jógee ci nguur gi mu doon xaalisu sénégalais yëpp ñu war ko dampeele sportif particulièrement les lutteurs dañ leen war a woo les responsables des écoles et des écuries xool en quel point la ñu impacté ñu ñu ñu ñu ñu ñu subventionné leen à à hauteur de ça. gannaaw kàddu yi xalifa ñaa yooyee nag Pathé Sylla moom it nga xam ne mooy président écurie yi Mor Fadam moom la mu xamle mooy diggante guy gi ak rëg-rëg bu ñu moytuwul du am ndax moom mi war a affilier dana téye écurie ba du leen affilier te bu boobaa dana gàllankoor combat boobu ndax naqar bi nga xam ne amee na ko foofee démb ci stade bi dañuy dem déglu ji Pathé Sylla ci dellusiwaat. suñu mbëri ndaw yi jël avance yëpp. nous sommes des impactés. gis nga Mbaye Tine numéro 2. dafa war a bëre ak ak Diarra 2 le 12 avril bi passé. ñu jox ko avance am mu jeex. te te te dégg naa joxaat nañ promoteur bi xaalis ba pare war nañ leen joxaat. Youssou Ndour bu Père Balla. et tant d' autres Gakou 2 fils de Balla bu école de Balla Gaye boo yooyu yëpp en tout cas man ñi ngi sama ginnaaw ñoom nee nañ du ñu bëre ñoom nee du ñu bëre te suñu mbëri ndaw yi jëloon ay avance yëpp du ñu bëre te ñun en tant que école de lutte de Mor ñun du ñu affilié CNG pour l' instant dañu téye suñu affiliation pour l' instant guñu ñu ngi déglu nag ñun dañu nekk ci benn dañu bu ñu woowee ARLC ñoom la ñuy déglu suñ jëlu seen responsabilité ñun dañuy dem ak suñu bopp. Ah, na nga xam ni école de Mame Faram moom combat guy gërëg moom amagul guy gërëg rek amagul pour mu leer sa bopp parce que man maa affilié chaque année te du ma affilié pour l' su ma gisul lu leer du ma nekk fii du ñu loolu moom maa ko maa ngi koy woo maa maa ngi ci woo ñëpp ah. ci même naqar boobee rek moom la Aliou Ba moom it secrétaire général bu écurie Bathie Seras yëkkate ay kàddu daal di ŋàññ jëf ji nga xam ne nii CNG def na ko démb ba waral ndaje moomee ñu génne leen ci biti kon dañuy seetaani Aliou Ba te dellu si waat. yaakaar naa làmb kenn mënu ko wax pare nga bàyyi écurie bàyyi école de lutte yi parce que base bi yëpp ñoom la te tamit tey jii bu ñu demee ba ñu war a woote ba ministère joxe feu vert war ñu mën a tëb ñooñu kon tey ñoo nañ fii dugg nañ ci salle bi ñoo nañ mais nee na dañu woo promoteur yi lañ woo ñoo lañ leen woo mais balaa ñuy woo promoteur yi bu amul mbër kan lay tëgg fan la war a jaar ci écurie yi la war a jaar ak école de lutte yi ñoom ñoo ñu teg ñoo ñu indil fii ay ay ay formalités yoo xam ne utloo ñu ay kayit utloo ñu ay récépissé ñu teg ne dañu bëgg a professionnaliser làmb ñoom li ñuy li nga xam ne moom moom moom la ñuy doxalee affaire informelle kese moom la ñuy def ndax chaque fois dañu leen def reproche boobu dañ leen koy wax mais bu fekkente ne nii la ñu bëgg a CNG bi ñu teg ñu bëgg a doxalee nii dem fenn. parce que lii ci boppam moom moo dul yoon te VIP am dëgg la mais mbëri daa am fu ñu bokk mbëri mag yi fa lañ bokk ci écurie dañu war a am kilifa dañu war a ay responsable bu ñu bëggee nag tëb seen responsable ñoo fii jëm nañu woo di bëgg ñoom li ñu bëgg a def xam dañu bëgg a diviser li gannaaw président yi am na fa mbëri yoo xam ne ñoom ñoo teewal seen i écurie ku ci mel ni Zos nekk njiital écurie door dooraat moom it yëkkati na ay kàddu ŋàññi bu baax a baax doxalin bi nga xam ne seen nar na koo doxale ci ubbi tib saison bi ak damp gi nga xam ne fas yéene nañ koo dàmp promoteur yi te muy jàpp ne écurie yi ñoo ci gën a yey kon Zos la ñuy déglu te dellusiwaat. bu pandémie ñëwee ñun ñëpp ñuy dund lu metti di dund ak sunu xale yi lu metti budget yi war a génn ñu ba ko jox promoteurs yi loolu duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg balaa nag ñu jëm ci marche fala lañ jëm maa ngi war a gis préfet euh, ak ñëpp ñi nga xam autorité ma xam ñëpp ñu accordé ñu benn marche bu mag boo xamante école de yëpp ñoo génn marche ko boobaa la ñuy xam sunu doole dégg naa ñu wax naan ARS yi dem ci ministre di ko wax di n'importe quoi loolu amul ARS mooy dëgg tey mooy dëgg ëllëg les gens qui pas au courant. je vais l'appeler naa woo ñëpp ne leen lii mooy AREELS nii la ñu war a doxalee ba keroog mais ñu ngi pare nañ pour jàppale le président pare nañ pour jàppale le président et président jàpp jàpp jàpp participer ci réew mi mais ñii la ñuy def ku leen encouragé wul tey fu dëkk bi jem gannaaw Zoss ci kàddu yi nga xam ne yëkkati na ko Saalum Saalum moom it ñu gënoon koo xam ci mbër mi nga xam ne mooy borom kuuru Baye Fall bi nekk foofee ci écurie HLM moo fa teewaloon écurie HLM démb yëkkati ay kàddu yoo xam ne boo déggee kàddu yi rek nga xam ne kii mu ngi wax ak euh, xol bu jeex kon dañuy déglu ci Saalum Saalum te denn si at. mais li may mën a wax mooy président na xam ne écurie yi chef écurie yi ñoo ko yor ñoo xam jafe-jafe mbër yi ñooy jàppale mbër yi ñooy sonn ci mbër yi ñoo xam ñaata mbër la écurie bu ne am kon waruñu joxe kenn te joxuñ mbër promoteur boo ko joxe xaalis te mbër yi moom lu luy promoteur bi di jëriñ mais bëre mbër la mbër booy jàppale bëre mbër nga war a njëkk a jàppale nañ jàppale écurie yi jàppale chef écurie yi ku yor écurie nga ñëw subventionné ko laay wàdd moo ko daan def bi fi jugee ba léegi amul maire buy subventionné écurie te loolu dara am chaque année depuis Abdou Diouf ba ci Laay Wade ci Macky Sall rek la amagul ASC football yi rek lañ koy jox mel ni mbër bokkul ci Sénégal du dëgg nañu boole ñëpp ñu yem ñu dë doon benn xam ne Macky Sall yàllaa ko fi teg pour mu nekk suñu njiit njiit nag xam nga ñëpp la fi nekkal. waaw jërëjëf. naka noonee nag mbokk yi gannaaw promoteur yi la ñu woowoon foofu am na beneen promoteur boo xam ne ñëw nañu ñu génne ko ca biti muy Ousmane Ndour nekk promoteur de lutte sans moom nag li mu jàpp mooy dañu ko woo moo waral mu ñëw ci ndaje mi bu ñu ko woowutoon kenn du ko fa gis te ci ndaje moomee it ñu fàttali ne promoteur yëpp lañ fa woo waaye ñeenti promoteur de lutte avec euh, de lutte sans frappe moom lañu fa gis Ousmane Ndour mu nekk mbir moo xam ne naqari na ko ba fa naqar yam dañ koy déglu ci si dellusiwaat. Euh, ñu ngi ma fii en tant que euh, ku bokk ci association des promoteurs bi Ablaye Diop jiite waaw ma ñëw fii tey nag en tant que promoteur parce que bureau bu bees bi. membre laa ci en plus ma bokk ci commission bi nga xamante ne moom la ñuy wax commission contagieux sama présence fii dafa am ñoo xamante ne ci kilifa yi nekk ci biir CNG bi la ñu bokk mais sama présence moo leen arrangé wul. li tax arrangé wul li tax mooy wu leen mooy euh, xam ci man loo xamante ne xam naa ko te sañ naa ko wax te man wax fu ma fekk la ma ca wax dinaa ko wax nit nag. Euh, Euh, bu yoon jeexul waaxu sil du jeex waaw comme que lii dafa am nii léegi léegi léegi léegi euh, moo tax bugguma réaction bi sax gudd mais li ma fi tax a génn xam naa ko ndax boo nee dangaa woo promoteur de lutte sans frappe nga woo président ba ne ko yow ak cinq personnes président bi mu ko wooyee balaa ma woo kenn def ma woo ne ma buñ ma wooyee nii yow laa njëkk a woo cinq personnes la ñuy nekk nag waaye nag deuxième personne kii topp ci man yow lay doon avant tout d'abord ma ne ko ah mu ne waaw ma ne ko ah mënoo seet eh, yeneen mu ne ma non en tout cas konteel sa bopp balaa ñoo dem fen ginnaaw loolee nag dañuy dem ak yéen ci écurie Fass bi nga xam ne écurie bu mag a mag a mag la ñu ràññee woon ko bu baax ci ay performance ak ay mbër yu mag ak ay mbër yoo xam ne formé na leen écurie boobee ci diiru ñetti saison mu ngi am 21 victoire maanaam ñaar fukki victoire ak benn ci ñaar fukki defet ak ñett ak benn match nul muy ay tolof tolof yoo xam ne écurie bi mu ngi ci dañuy dem ak yéen ci jàngat bu gën a yaatu 21 victoires 23 défaites benn match nul loolee la journal bi xëyee tey ne écurie Fass daal mu ngi ci guddi gu bët setagul ci ñetti saison yi ñu génn depuis trois saisons Fass de mal en pis 2017 2018 8 victoires 9 défaites benn match nul la ñu enregistré ci jamono jooje Gris Bordeaux Brisli ak Lac Rose ñoom ñépp laal suuf bari nañu waaye danoo daanu Forza ak Général bu Faas ñoom képp sauvé honneur saison bu méttee métti ci ñoom ci 2017 2018 ñu jàppoon ne 2018 2019 saison bi dana gën a baax si ñoom danañ gën a waat waaye li olof di wax rek bu naree ñaaw day gën di ñaaw saison boobee ñëw ñu am 9 victoires am 9 défaites Gris Bordeaux gisuñu ko mu bëre Gris 2 rakk ba mu bëree dañu ko daan gannaaw ba ñuy séentu Forza ci victoire bi mu jóge woon ci digganteem ak du Diouf ñu jàpp ne saison 2018 2019 bi dana ci wonewaat boppam far mu ñàkk adversaire mu jul sax bëre muy saison boo xam ne presque ténor yi fare ci écurie Fass boobee yépp dañoo sommé ku ci mel ni Lac Rose bu Fass Gris Bordeaux Brisli ba ci Papa ñoom ñépp amul kenn ku ci am combat ci mujjantal ga sax Papa Sow dañ koo mujjee exécuter ci écurie ba yeneen gone yi ñu amoon yaakaar muy Pape Ndoye ak Tafa Gueye ñoom ñaar ñëpp ami défaite ñu dem ci saison 2019 2020 mbir ma gën a tee pire ndax 4 victoire la ñu am 5 défaite saison boo xam ne nii combat yi sax bariwut ndax coronavirus bi nga xam ne moo gàllankoor lépp ci mois de mars saison boobee kookee di Gris Bordeaux di Forza di Lac Rose ci Gris 2 kenn ku ci bëre ña jot a bëre ci écurie boobee sax mooy gone yi nga xam ne moom la ñuy woowee les espoirs ku ci mel ni caatu Fass caatu montagne Lam Toro alliance bu Fass ñooñee ñoo tooyal seenub xaftaan li ni mel nag moo waral jàngat bu yaatu bi nga xam ne sunu làmb def na ko ci écurie fas ne diirub ñetti saison gi nii ñaar fukki ndam ak benn moom lañu am ci kaw ñaar fukki défaite ak ñett toftal ca benn match nul mu nekkoon écurie boo xam ne écurie bu ñëpp doon bàyyi xel la écurie bu ñëpp yaakaaroon la ci ay performance mais écurie la boo xam ne nii ndaanaan bu ne jógee na fa def nañ jaloore bu ne ci làmb écurie boobee moo nekk ci tànki suux ndax ci diirub saison yi ñu génn seeni jéego dalul xel benn yoon. gannaaw loolee nag mbokk yi bëree ci huis clos ñu ngi koy laam-laamee njort nañ ne fa la ñu jëm promoteur yi gannaaw ba ñu génnee xamle ne pare nañu amateurs yeeg mboolem ñi aju ci làmb ñoom ñëpp jàpp ne war nañoo dem ci huis clos mbër yi aussi jàppoon ko wala jàppoon ne war nañoo ubbi làmb ji ba ñu dem bëre ji Aziz Ndiaye tey agent wu Balla Gaye 2 le Lion de Guédiawaye moo génn xam ne ne mbërëm pare na bu dee dañuy bëre ci huis clos bu dee suba suba moom pare na ngir bëre ak ki nga xam ne moom mooy Bombardier même bu dee jàppale Gaston aussi pare na ngir euh, def ko dañuy dem déglu ji reportage bi nga xam ne def nañ ko ci Aziz Ndiaye jamono ji ñu toll nii làmb ji ñépp bëgg mu ubbi muy promoteur di mbër di amateur di manager di supporter ba ci journaliste yi yëngu ci wàllu làmb ñépp seen mëbët benn la mooy làmb ji ubbiwaat ay buntoom ba ñu bëri ji ci noonee nag le ministre des sports Matar Ba daal di ki nga xam ne mooy Bira Sène jiital CNG ngir ñu waxtaan mu waxtaan ak promoteurs yi ci naka la ñuy ubbee làmb ji ba ñu mën a bëri ji à huis ñu bari jàpp ne huis clos riimewut waaye kii di Aziz Ndiaye agent wu Balla Gaye 2 le lion de Guédiawaye moom xamle na ne ñoom pare nañu te Balla Gaye ñuy wax huis clos rax ca yi moom Aziz Ndiaye yemul foofu ndax pare na ngir jàppale Gaston Mbengue ci journée yi nga xam ne ni taxawal na ko jàppale ko ci wàllu sponsor ba diggante Balla Gaye 2 ak Bombardier nekk journée bu mucc ayib donte du nekk journée boo xam ne supporters yi danañ leen séntu ci stade ba moom Aziz Ndiaye engagé na entreprise am boobee di Zador ngir ñu jàppale Gaston mbeng ba làmb ji ñu am ci lu kawe seenum njort kon li ñu mën a jàppe ci kàdduy Aziz Ndiaye mooy Balla Gaye 2 le lion de Guédiawaye bu ko Gaston mbeng ne woon suba suba moom pare na ndax muy supporter ak mu ñàkk supporter yépp moom tooyal xaftaanam képp la bëgg. mu ngi noonu mbokk yi loolee mooy li nga xam ne moom moo fi gënoon a fës ci wàllu làmb ñu leen di jaajëfal bu baax a baax ci ànd bi ngeen di ànd ak wasaare làmb ci xibaari làmb yi nga xam ne ñëw nañu ak yéen muy lu bees ñu fas yéene ci ànd a yéen saa su nekk di leen indi li gën a fës ci wàllu làmb dañuy dem a yéen nag ci revue de presse bi gannaaw revue de presse bi ci la ñuy jaar daal di tëj cant ngërëm ñeel na leen ba ëllëg incha allah ci yeneen xew-xewu làmb jërë ngeen jëf saraax la ñuy def ci xew xew làmb tey fekk fa coow la xiiroo baak mbiicoo ŋaayoo ba amoon démb ci arène nationale bu nuy wax Carrefour wala sele ba yoon démb arène nationale mat dañu seede bira seen jiital CNG moo fa woowoon démb promoteur yi ci naka la ñuy waxtaane ba mën a ubbiwaat làmb ji ci yan anam la ñuy ubbee làmb ji ba mën a bëri ci huis loolee moo nekkoon waxtaan wa doon am démb foofee ci arène nationale waxtaan woowee nag la ko sabab woon ci bira seen lañ ca jublu moo ñu génne benn ñoom ñooy tëgg làmb yooyee ba ko yaak responsable écurie ak école de ya déggee dañoo sol seeni daal jubali arène ñoom dañoo bëggoon fekke ndaje moomee ndax lu njiig njaag ñooy njaag ñoo yore école yi yor écurie yi yor mbër yi bu ndàmpaay di am di jóge ci état kenn waru leen waaye ba ñu ñëwee ca salle ba ba installé ba noppi CNG da leen a delloowaat ca biti lañ leen xamal mooy ndaje mi ndaje promoteur yi la ak CNG waaye yoonu président écurie ba populisme xamul ñan la war a jiital ñan la war a jox gëdd lamb ji ñim ci respecté du ñenn ñu dul asociation amateurs yi communicateur traditionnel yeeg promoteurs yi waaye lii di responsable écrit yi waxu ceeg kenn lijjanti wu ci kenn ñeneen ñi lay waxal rencontre bu boole wuñu ci dugaluñ ci te moom dafa war a xam ne école yeeg écrit yi ñooy baasu lépp bu ñu waxee lamb école yeeg écrit yi ñooy baas bi ñoom président yeeg responsable écrit yi démb maire bu fut la def te du ñàkk ñu ci téye seeni mbër am ñu ci junj sax ne duñu affilié dañuy ndax ñoom ñoo yor écrit yi wala responsable yi ña bàyyi seeni mbër fa séene koo bëriloo à huis mooy géejawaay Aziz Ndiaye agent wu Balla moo génn ne Balla Gaye pare na ngir bëre à huis clos ca eggee man Aziz Ndiaye danaa jàppale promoteur ba engagé naa Zador dana nekk sponsor ci bile événement Zador dana jàppale Gaston Mbengue ci événement yi rax ca dooli man dinaa ko jàppale ñu wëri ay sponsor huis daal bu Gaston pare pare na bu Gaston pare Balla Gaye 2 pare na bu doon tey tey CNG démb bi leen wooloo da a wax kàddu yamu jële foofee ca Matar ba ministre des sports leen xamal mooy am na fond de l'État boo xam ne danañ ko teg ngir ñu organiser à waaye day fekk promoteurs yi nangoo tëgg ñoom mbooleem promoteurs ya fa daje woon la ñu mooy valider nañu côté danañ déposer suñu budget li ni mel moo war journal ba xëy ni les promoteurs et déposent leur budget au CNG mbooleem promoteurs yañ fa fekk ñoom mu xamle mooy on est d'accord pour organiser à huis clos bu dee Siri Jaxate ma jóge woon ca Thiès démb la mu xamle mooy man noppi naa bu ñu bëggoon suba ma ubbi ko huis bi bu dee nangu nañu suba ma njëkk koo tëgg bu dee suñu papa Adama Bob la mu xamle mooy bu ñu déposé ba noppi CNG dana def la compilation de tous les budgets rax ca dolli na ña ëpp ca ñoom sax déposé nañ seenu budget ñeneen ña ca des ni suba wala ginnaaw suba ko defee CNG dana def la compilation xam naka lay dérouler affaire ya bu ñu jàllee ci écurie Fass écurie bu mag ba le journal ba xamle mooy écurie boobee ci jafe-jafe di ruur ca saaku ñetti saison bu ñu xaymaa lañ ci am ci ay victoire mu ngi toll ci 21 victoire ci ñetti saison yooyu ñu ci am ñaar fukki défaite ak ñett 23 défaite lañ ci am ak benn match nul mooy wane ne équipe bu mag boobee mu ngay jey tànki disparaître saison 2017 2018 8 victoire lañu am 9 défaite ak benn match nul boobee Gris dafa daanu Brisli dafa dafa daanu Forza ak Général bu Fass ñoo sauvé victoire lañu am 5 défaite Gris Bordeaux di Forza di Lac di Gris 2 amul kenn ku ci am combat même ña ca am combat sax jotuñoo bëre loolee moo waral journal ba xam ne laata lamb jee ñoom waa Fass ñoom la njëkk a positif jërë ngeen jëf mbokk yi moo nekkoon li gën fës ci ëttu yéenekaay bi ñu leen jox dig